spécial waajal tabaski ak ren herbe épice ay épices 100 pour cent naturel fas yéene ñëw safal sàpp tabaski bi waa Alphie Cuisine nuyu naa leen sama gars yi il fait beau sortez xew mi commencé na ak ren herbe épice sama gars yi pack bi yegsi na intégré ci euh, pack spécial euh, tabaski bi nga xamante ne li ko composé piquante la viande kenn du ko laam-laamee épice su sauce épice su lakk yàpp ak épice su touffé waaw 6500 nga daal di am sa 5 variétés épices yoo xamante ne promotion bi jot na waaw lii moom événement rek koy maye nga am cinq variété yoo xamante ne dañuy wàññi njëg bi waaw kay toujours ay 100 épices 100 pour cent naturel yoo xamante ne ci Reen Herbes Épices rek ngeen koy am sama gars ay ayca nañ ko defee comme nañ ko waxee woon euh, njëkkee ak benn navarin dañu la bonava noo ko woowee baax na euh, waa Mauritanie tàmm nañ ko loolu waaye nag dañ koy revisiter waaw dañ koy revisiter daal di koy def euh, d'une manière générale boo xamante ni dinañ ci def euh, garniture aromatique lu ci mel ni euh, oignon vert bi nga xamante ni moom laa récupéré ci sama maanaam partie bu weex bi ma récupéré ci oño bi carotte soble ak laaj moom laa njëkk ñëw rosi ko ak euh, ndawal bi bu ko defee ma daal di ci laal tarkal la épices yi nga xamante ne safala ko tax a jóg te ay épices 100 pour cent naturel la herbe aromatique yi nag du ko fàtte ndax am naa fi persil ak Corian. pak ñëwee léegi ma wan leen euh, emballage bi nga xamante ni moom la ren RB Piste euh, wàccee ci 2023 bi mais en attendant nañu euh, démarrer navarin bi nga xamante ni dafa laaj temps pour mu ñor et li koy safal yëpp a ngi nii ndax li moo nekk ci biir pak bi ay ci sama gars yi ay ca sama gars léegi nag bu buñ ne navarin wala ñu ne bonava épice étouffée bi moo ciy dem waaw épice étouffée bi moom am na laurier am na moutarde oignon poivre sel ak épice mélange épice moom tufee ko tax a jug ñoom ragu voilà sauce booy defar vermicelle sauce su couscous voilà moom épice tufe bi ngay jël donc comme ñun ci euh, mouvance boobu la ñuy demee tey parce que bu ñu nee tabaski am na ñoo xamante ni euh, bu ñu démarré rek dañuy defar seen tufe naturel yoo xamante ni waaw du changé benn yoon sunu ay façon defaru tufe donc di may def rek mooy nii damay jëkk def euh, épice tufe bi ci ndawal bi ñaari cuisson laa koy def bu ko defee ma daal xorom parce que épice ba léegi bokkul ak xorom waaw lii kase laay def ci ndawal bi parce que tam am na ay question yoo xamante ne souvent dafay ñëw euh, yoo xamante ne dañuy laaj naka la ñuy defaree grillade te du du dëgër daal waaw gis nga sama gigot tarkal la gigot bi lañ ma lañ ma daggatal am na suux waaw kay mi gis nga am na suux am na graisse voilà gras bi man maa ko ci bàyyi exprès voilà léegi fii laa koy njëkk fii laa koy njëkk doorele avant ma koy ñëw def ci sëñ dama koy may couleur bi voilà fii nee naa la dama ko fi may couleur rek ci cin bi la jëm voilà donc lii dafay tax voilà léegi damay damay dégg cin bi nga xamante ne moom laay def ci euh, laa koy ñëw def donc gis nga coloration bi mu indi bi xaw a mel ni bi donc lii dafay tax euh, goût bi dafay gën a prononcé maanaam da ngay gën a am goût gën a neex bu fekkee dangay nga njëkk euh, saisir ndawal bi avant ñu koy defaat ci tiin bi ak herbe aromatique bi voilà léegi ñu daal di jël carotte bi céleri soble ak laaj fii nii dama koy yelee ni def ko ci biir voilà ay may euh, euh, ñëwaat di di ubbi balaa di dolli épice et puis di sàppali ma profité xool li yi daggat soble bi li des ci soble bi voilà ak laaj ñëw dolliwaat épice def ci herbe aromatique yi voilà bàyyi ko mu ñor waa am na nag beneen astuce boo xamante ne moo ci des pour ñu def ko ci sunu navarin wala euh, bonava boo xamante ni day tax sauce bi gën a onctueuse voilà gën a épaisse. voilà comité yaa ngi noonu euh, soble daangoo léegi voilà épice sauce ci pag bi la bokk donc moom it ku ne sauce xam ni faaw ñu laal ci épice sauce donc tombé na sama paquet di jeex donc naa ci def yëpp rek. voilà toll ci moitié guddi fay daal di koy mélanger donc moom mooy mooy deuxième astuce bi nga xamante ni mooy tax sunu bonava wala navarin onctueuse donc da am ñeex bu onctueuse donc dañ koy mélanger dañuy seeyal farine bi ba mu seey ñu daal di koy ñurukee euh, li nga xamante ni mooy sunu bëccëg léegi nag mën nañu ñulu voilà léegi nag ñuluk bi moom it du soxla buy bëri dañuy ñuluk partout di di yëngal voilà bu ñu ñëwaat di ko vérifier soxla wuñ ci dem ba ko bëri. bibliothèque su ñeex bi ngay am voilà léegi nag damay wàññi bi ñamale ko bàyyi ko fi muy compoté ba ndawal bi ñor. pomme yaa ngi nii tege ak euh, soble bi moom kese laa ciy def du ma ci def nokkas mais ku mu neex nag mën nga jël tibb sa nokkas nga def ko ci. parce que dama bëgg goût yi changé en général façon euh, tufe yii nii dafay nduroo goût donc essayer leen méthode bi nga xamante ne moom laa wane. ñu bañ ci def lool parce que da gis da ngay am beneen beneen façon goût boo xamante ni bokkul ba léegi ak sunu navarin yi ñuy defar wala bonabaay voilà léegi nag yëf yaa ngay gos gis nga fi mu nekk nii yemale nañ sunu ñuluk comme ndawal bi des na léegi nañ ci def pombiteer parce que dama ko bëgg a garder nii mu nii mu entier wee nii voilà nañ ci def pombiteer yi bu ñoree rek ñu seppi ko xam nga légume moom soxlawul sax muy dugg ba ci biir chaleur bi di dégager rek buñ ko tëjee rek da koy ñoroon voilà léegi nañ ko ci bàyyi nii bu ñoree rek ñu ñu seppi ko ah waa ma ni génn leen génn leen <laughs> sama gars yi génn leen wàccaay tabaski bi tàmbali na ñu ànd ceeg Reen Herbes Épices numéro téléphone bi changé wul 77 390 69 72 nga am 5 variétés épices yoo xamante ni 6500 la épices viande piquante touffé lakk yàpp ak sauce voilà ñi ngi Bonava waaw wala Navarin yow noo ko woowee rek baax na wala touffé waaw ba léegi sax bokkewul ak tufe na fekk soble bi sax di duggaale nii waaw kay léegi 6500 nga am 5 variétés épices yoo xamante ni euh, waaw wàccaayu tabaski bi rek ko mën waaw kay sama gars yi fu ngeen toogee ñëw leen waaw recette de fête la de ay ayca ma ne ko ay ayca nañu euh, tëjaat voilà bàyyi mu gën a compoté waaw ayca ña nga ca dernier ligne droite ba nag waaw kay yëf yaa ngi gos ndawal bi ñor na pombiteer bi tam dañ koy vérifier soble ba moom la ma ca defoon sax jaar na jaare na fa jaare na fa sey voilà da léegi nag damay ubbi cin bi bàyyi mu évaporé wu nga xam ne ñeex bi day wàññeeku waaw bu fekkee nag da ngay soos ak mburu comme ni ma koy defee waaw bu la neexee bàyyil soos bàyyil soos bi vérifier ndawal bi ndax ñor la xomm bu ko defee ñu jàll ci dressage bi voilà voilà voilà yëf yaa ngoog ayca euh, sunu bonava bi pare na wala navarin voilà comme ni ma ko waxee rek noo ko woowee baax na wax ko tufe baa nga def ko navarin wala nga def ko bonava ak lu mu ci mënti demee nag euh, yëf ya euh, pare na bu la neexee jël sa pain arabe pain shawarma voilà lekkee ko wala nga jël sa mburu normal rek baguette voilà Reen Herbes Épices nag euh, mën nga ca biir lakk yàpp épices piquante épices sauce épices viande ak épices touffé ñoo composé pack spécial ki bi nga xamante ni 6500 lay jar ñu wàññi njëg bi. sinon bu leen fàtte am na yeneen épices nag yu ci mel ni épices ceebu xamante ne ñoom ñi ngi disponible ba léegi ci site internet bi pour yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci diaspora bi wala ci numéro téléphone bi bu ngeen toogee fi ngeen toog ci Dakar ñu livrer leen ay ca bu ko defee comme ni ma ko waxee woon ñaari publication lay nekk par semaine et benn direct boo xamante ni dañ koy def ci TikTok bi ak Reen Herbes Épices jaajëfal naa leen sama gars yi je vous souhaite une très bonne dégustation maa leen di xaar nag ci commentaire yi ngeen joxe seen suggestion yi ngeen bëgg mu jàll ci spécial waajal tabaski bi spécial waajal tabaski ak ren herbe épice ay épice 100 pour cent naturel fas yéene ñëw safal sàpp tabaski bi